ay euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk internet yu ñuy déglu à travers euh, partout dans le monde rawatina yéen ñi abonné chaîne bu mag bi ñuy wax Galsen People Té nag dañoo ñëw seet si benn kilifa benn kilifa boo xamante ne mën naa ne kenn dootu ko présenté si mim réew ñu koy wax Serigne Cheikh Fall Khataba nekk surtout Cheikh Khataba bi nga xamante ne jàmbaar jooju doon ànd ak Khadim Rasoul. ba ko gisee nag nii ngeen xam ne kii si famille xam-xam la bokk ñi nga xamante ne ay borom xam-xam kese lañ te nag war nañ waxtaanee lu bëri war nañ waxtaanee si ñaan yàlla bi nga xamante ne ngi si am ay résultats war nañu waxtaan aussi si faj bi nga xamante ne mi ngi koy defaral jaamu yàlla ba képp koo xamante ne koy seet si nga si gis sa bopp. war nañu waxtaan aussi si actualité gis na ay dina def ay révélation yu doy waar nag tey jii si diggante procès Adji Sarr Sonko le 23 mai sëñ bi nag xam naa balaa ñoo commencé waxtaan bi dañ koy daal di bàyyi mu nuyu suñu mbokk internet yu koy seetaan Cheikh mu nuyu nañu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. auzu billahi mina seytaani rajim auzu billahi bismillahi inna waliyallah ñoo ngi siyaar képp ku jàkkaarloog sunu jëmm rek di siyaar képp koo xam ne yaa ngi teewlu sunu jëmm ci site bu mag bi di ñaan yàlla suñ boroom defal ñëpp jàmm te musal ñépp waa réew mi ak waa bitim réew te musal bépp jullit defal leen jàmm dalal seeni xel ak seeni xol ak seeni ruux barki sëñ Tuubaa euh, macha allah sëñ Cheikh Fall Xataaba euh, kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax xam naa rek dañuy daal di jublu si programme bi ñëw tàmbalee wàllum seet sëñ bi nag mu yore seet bi nga xamante ne seet bu doy waar la ba képp koo xam ne da koy seetal da koy gis Cheikh lan mooy secret bi. waaw seet seet moom fi mu toll nii daanaka dama naan la dama cee plafonné ndax egg naa ci jamono bi foo xam ne ci seet. maanaam xat naa ci xat goo xam ne damay egg sax ba sa sama yeneen liggéey yi may def yu ci bari seet nga koy sardel la xam nga seet dafa mën a jël waaye dara waru ko lu dul nag seet gu wér ak gu leer tamit nit ñi dañoo bëgg seet gu leer te sénégalais pour mu gëm la da koy wax lu ko jommal wala lu ko jaaxal wala loo xam ne nii xam na ne lu wér la ndax nit ñi nag lu ko jóg rek ñi jox la seen xaalis ne la ñaanal ma legi lolo waral nak li di set suñu borom ñun defal ñu ci tawfiq ju dool ne set gi ñuy set ni mako yag waxe set yep seet baax mais set gi dafa kamal aw dafa gën baax mom baax na way bu gën ñew rek baax taxo day set go xamni ni limi li ci sa mbir yow mi ma setal dalay jaxal yow waye ginnaaw bu mu génnee lolu solution bi ma lay indil sa sa na ngay daal di gisee njariñ li lolu tax set gi doy war moo waral kuñ seetal ba wax la liñ la war a wax nga def ko saa boo ko defee ca saasa da ngay daa di gis njariñ yi xam ne lii ñu la defal yaa ngi gis résultat moom te dara xewagul waaw loolu nag lu ñu sante yàlla la képp ku bëgg ñu seetal ko bu nu woowee téléphone baax na bu mënee ñëw baax na boo mënta ñëw boo ñu woowee ak foo mën a ne ci àddina da ngay foto sa loxo ndeyjoor bii yi ñu ko ñu xool ko ci whatsapp bi wax la liñ la war a wax ci yow. lii nag dafa am secret am sirru ba noppi am mbirum yàlla mu ci nekk muy empreinte tubaab yi trouvé nañ ko ñoom ba di ko utilise ci yeneen façon waaye xam-xam indi na ci loo xam ne nii ci nit mën nga cee wax nit démbam ak tayam ak ëllëgam voilà muy xam-xam boo xam ne jógewul fii ci réew mi mu ngi jóge ba Inde di seet gu wér yeneen seet yi nga fi gis ci réew mi yëpp ay aada indi ko yenn cosaan seet di lu fi yàgg ci jamono yonent bi ba tey seet mi ngi am suñ tubaa sunu waaju baax ji bi mu demee ci géej gi tubaab yi bi ñu demee ba jaaxle mujj nañ woo ab làbbe boo xam ne ku aayoon la ci jamono boobu di ko seetloo mbiram biñ ko xoolee dana leen kii li feeg moyloobu leen ko yàlla mënu leen ci moom dara li ngeen jéem ci moom sotti kon seet yàgg na fi xam-xam yàgg na fi te ñooñu daawuñ seet yi xew léegi waaw kon seet day mbir moo xam ne nii bu ñaan doon am néeg mooy bunt bi ciy dugg ndax nit mënoo koo ñaanal te xamoo mbiram ba pare waaw ilmu nujum ak biddiw xam buróoj xam lépp ba pare nit ki saa boo taxawee ci mbiram bëgg a faj aajoom ci kàttanu yàlla suñ borom mën naa dogal aajoom ji nga bëgg mu faju mu faju ci kàttanu yàlla. macha allah euh, macha allah Serigne Cheikh Fall xataaga xataaba kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax sëñ bi nag xam naa dañuy jàll nag suñu beneen question rek muy wàllum xëlwatu Cheikh bi ñu dégg ni da dugg xëlwatu te képp ko duggal xëlwatu rek aajoom day faju wa xam nga xalwatu jamono bi ñu tollu ni Sénégal bo fi doon génte génne téméri sëriñ 90 yi ñu muñ ci wax sax wala ñu jëm ci tammi lo xam ni moy haqiqatan ci walu azrar ak ñaan waye xalwatu dafa am nit ku koy def am tamit nit ki nga xam ni ni personne bi wara def xalwat dafa am nit ko xam ni ni da sono nangoo sonu sa ak sa borom. di sàmmonte sa digganteeg sa borom nangoo jaamu yàlla nangoo sonn ci kurus nangoo fanaan ci der waaw xalwatu nag day mbir moo xam dafa kamaal ci wàllu ñaan yàlla ndax nit ki nga xam ne dafa am jafe-jafe ju ne këtt na jonn kooku moo aajeel xalwatu te ñun xalwatu bi may defar man di ko liggéey maanaam damay egg ci sax ne aajo ju ko jar sax daanaka ju jar def ko amut ci réew mi wala bariwu fi ndax wala nit ñi aajo yi lay diis daanaka mën ngaa toog fii sax waaw waaye xalwatu dafa kamaal te xalwatu mooy dëgg dégg xaqiqatan ñaan ki nga xam ne moo am jafe-jafe dëgg dëgg ju këtt na jonn kooku moo ko soxla ñaare nit koo xam ne nii tey nekk na bitim réew wala yooyu am problème mu këyit yoo xam ne nii urgent na te amatu ci yaakaar wala tiit na kooku bu ñu woowee bañ defal ko riyaada ñetti fan ca saasa day daal di gis résultat bu dee koo xam ne wàllu yoon wàllu kaso am na jafe-jafe ba ci ba nga xam ne daanaka moom dugg kaso ca des wala dugal nañ ko sax. kooku xalwatul kurus dañuy toog liggéey ci ci kurus bañ suñ borom dogal ñu génne ko bàyyi ko mu doxi itteem xalwatu yooyu daanaka yooyu yu tar yooyu yu metti yooyu wala diggante boo xam ne nii egg na foo xam ne moom defaru gi moom ñëpp rafet nañ jort ne mënatu la ne ci diggante góor ak jigéen wala sa nit ak sa nit sax koy liggéeyal wala leneen leneen kooku mën nañ cee def riyaada yoo xam ne incha allahu du taxaw baat ak tontu lay doon incha allah. macha euh, allah Serigne Cheikh Fall Xataaba euh, kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax suñu Cheikh nag xam naa dañuy jàll suñu benn question rek muy wàllum rab rab nag su ma ko waxee muy loo xamante ne sonal la Sénégal yëpp presque surtout surtout jigéen yi rab nag ak cat mën naa si booleeg cat parce que nekk na li nga xamante ne lu doy waar la sëñ bi loo ñu mën a wax si wàllum rab ak cat. waaw booleel nga ma ñaari question yoo xam ne sax ñoo war a ànd muy rab ak cat. gis nga cat bari na ñum japp bañ yanu seeni dal hmm? cat hmm. sumiku di dox ci mbedd mi doon ay dof ñi jàppe leen ñun rab japp wala ñunu liggéey ta cata leen ko def waaw cat day def nit noo xam ni man nga tay ji yoron xewul gu dul jeex wala nga nekkoon ci entreprise bu mag wala nga yor société bu mag sa mbir di dox wala nga doon koo xam da nga daan am teranga xewul ba japp ne dootoo ko ñak ci sa adina cat mën naa ñëw raxas ko ba mu set. Hmm? waaw gis nga loo xam ne dem na ba suñ tubaa di ci ñaan. Hmm. wa sarri sirrin wa zarril xalqi insihimoo max jinnihim mooy si di di bari na ci lu suñ tubaa di ñaan ba ñaan na ci wàllu làmmiñ kon làmmiñ day lu am bu doonoon wala mu doon lu nit ñi xalaat ni di ko wax rek du e jaral suñ bi ñaan ci waaw lu jaral suñ tubaa mu taxaw ñaan ci yàlla hmm. di ci muslu waaw muy ayu làmmiñ nag la wax ak ayu bit fi ne nii ni catul làmmiñ amee noonu la catul bët amee waaw am na ñoo xam ne lu ñu wax mu yàqu am na ñoo xam ne nii lu ñu xool mu yàqu waaw kay kon cat dafa doon mbir moo xam ne nii ni muy yàqale doomu aadama dafa ëpp li tax nag nga boole kook rab ñoom ñaar dañoo bokk ay manifestation ci doomu aadama nit dana jékki-jékki dina romb ci mbedd mi di waxtu di wax wax ju bari nga yaakaar ne kii ay raba ko jàpp wala dañ koy liggéey wala dara hmm. fekk cata ko def waaw ndax problème yu bari moo ko jàpp ba dem ba mujj moom nekkatut ci nit ñi dafa génn ci nit ñi ngi sol mbubu mi ngi lekk mi ngi naan mi ngi wax mais nekkatut nit ndax problème yi muy jànkonteel ci xelam ak xalaatam ak xolam hmm. dem na ba ruuxam ak jëmmam hmm. ak xolam mënatu koo dékku léegi li muy def mooy tëlbati di wax wala muy def wala muy mer wala muy xeex wala muy sumik wala muy sol lu bon dem ba àddina dootu ci yëgati sax sangu ak mu sol bu mu baax bu ko defee day daal dof ndax ñetti façon dof moo am dof ci xel dof ci yaram ak dof ci jëf léegi nag yooyu bu ko jàppee cat bu la jàppee digg mën a laa indi ba dugal la ci cadre boobu mooy waral nga gis nit daan am alal wala meloon benn melokaan ba mu yàgg nga xëy rek ne la de moo doonoon nangam nga xool ko mu doon ko summiku ne ci mbedd mi jàpp ne liggéey ko def te cat ko def. ok mm-hmm. rab nag dafa am leneen lu muy def maanaam nit dana nekk ci këram. Mm-hmm. amaana muy borom kër ga amaana mu bokk ci société bi nit ñi bàyyi ko xel muy nit koo xam ne nii dara da nga naan dara jotu ko te fekk moom moo gën a dof sax ki summi ko ba ne ci sën bi waaw parce que li sabab loolu mooy rab ko jàpp moom rab bi ko jàpp tax na moom dana téye yaramam dana téye xelam dana téye sax ay waxam nga xam ne mën nay sañse yëpp toog ci biir nit ñi waaye saa boo waxee nga xam ne dafa wax saa bu jëfee nga xam ne dof moo jëf yaa ngi dégg dana ko jàpp nag ci wàllu cër maanaam mu xirtal ko ci dara rab dana jàpp da nga gis koo xam ne day mën a sañ si luise lool mais buy sangu quatre heures de temps lay sangu wala cinq heures de temps rab rab mooy waral moo koy xirtal ci di sangu mën naa sangu ba seet ñëw toog fii ba soo liiree jëkk su muy dem sangu ji wax loolu rab koy def nii wala mu doon mu xirtal ko ci wàllu jàpp di jàpp rek wala mu xirtal ko ci raxas boo ko joxee pot day dem raxas ko boo ko joxee kuddu day demaat raxas ko léegi ñëw dem ba ci lekk demaat yooyu yëpp rab moo koy def nit ki day egg ci nit ki mën naa sañ sañse ba jekk war a génn ñëpp naa ah, li nga so rafet mu duggaat summi ko solaat leneen bañ naa ah, li nga mu dem summi ko waat maanaam loolu rab moo koy def wala mu génn kër gi dem ba ca mbedd mi dëpp ñëwaat toog yooyu yëpp rab da koy def nit da koy def ba di ko def xiirtal ci wàllu sàkk awra bopp mën na ciy nekk di ci fo waxtu wu ne saa bu noppee da koy rëccu xam ne li mu doon def bëgg ko mais mënu ko ñàkk dana xiirtal nit rab dana xiirtal nit boo xiirtal ko ci mooy yàlla mu dëkki di mooy yàlla fu mu toll day nekk di mooy yàlla wala bu ko defut du am jàmm waaye saa bu ko defee ba noppi dana xam ne lii mu doon def du moom waaw loolu rab dafa bari lu muy def ci nit waaye ginnaaw bi muy def yooyu yépp nag solution daf fay am maanaam ki nga xam ne rab daf koo sonal ci yooyu xeet yu mel noonu yépp liggéey nañ cuuraay boo xam ne nii cuuraay bi boo ko suuroo ci kàttanu yàlla fa saasa mm-hmm. ngay tàggu yooyu. cuuraay la loo xam ne nii liggéey bi rek liñ ci daj pour am ko ak garab yi nga xam ne moom lañ war a composé pour am ko mm-hmm. kenn mënula laa wax wuti bi rek dafa metti ci àll fasantikoo lañ koy wute mm-hmm. waaye yàlla suturaal nañu ba fi mu ne ñoo ngi ciy am xëy na du bari waaye am nañ ci yoo xam ne nii mm-hmm. képp ku rab sono ba nga xalaat ne sa mbir lii ko rab a ko def incha allahu saa boo ñëwee boo ko suuroo ci kàttanu yàlla tàggoog moom boo doon ku nu sax danga ne ñokket tàggoo ak moom incha allah. Euh, macha allah Serigne Cheikh Fall xataaba euh, kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax lépp lu mu fi lim nag képp koo xamante ne bëgg nga euh, Serigne Cheikh Fall xataaba faj say aajo rek incha allah boo war a si numéro yooyu affiche suuf baaru écran bi ko jot te say aajo dina faju ñu jàll suñu beneen question rek muy wàllu ubbeeku ak kaaraange dama koy boole parce que dafa mel ne ñaar yooyu moo xaw a méngaloo. waaw ñaar yooyu mën na xam ne nit ki xas ubbiku bu tëddee di nelaw mën naa am xaalis. Hmm? mën naa am xaalis. buy lijjanti mën naa am xaalis bu lijjantiwul man naa am xaalis kooku dafa ubbeeku ubbiku nag li koy def ci jaam dëgg dëgg dëgg dëgg ginnaaw nammeelug yàlla sangu moo koy joxe. sangu waaw. càngaay déedéet waxuma sangoog saabu ba sedd dafa am secret bagage yoo xam ne nii képp ku ko am. yor naa ci benn mi ngi nii naa la ko wan lii siru alam nasaral lii nga gis nii. ki gën tëju ci àddina laa la wax ki gën tëju ci àddina bu ma ko liggéeyalee lii lii su ma ko ko liggéeyalee dafa metti nag dafa metti deux mètres la fi nga koy gis nii lim bi bu ma la ko waxoon da xam ne toogaay bu yàgg la ak mbind mu yàgg ak jëf ju metti waaye képp koo xam ne ni tëju nga ba jàpp ne mënatoo am xaalis su la suñ borom dimbalee bañ liggéeyal la lii ba boole ko composant bi muy àndal kii danañ ko booleeg 313 doomi siddéem yi ñuy màcc mhm. moom lay àndal wala nga boole ko 313 xobi déem xob yi bis buñ ko defee bis ba bis ba del si def ko liñ ko war a def ak fañ ko war a def da ci am loo xam ne dañ koy tënk rek ndax du jar leeral ndax sëriñ si bis buñ la ko defalee kenn mënta tee ngay am xaalis booy jógee di dox ak boo toogee hmm? problème xaalis moom doo ko am kii cangaay la loo xam ne ni yow mi nga xam ne ni lu jaar ci sa loxo bii mel day dem du taxaw du xaar kii mooy sa mooy sa solution yow bu fekkoon na nga yor ay million muy jaar sa loxo di jàll wala nga ubbu ba mënoo am xaalis nga tëju wala nga dem ba loo am du taxaw kii moo ci gaaw kii jox naa ko nit koo xam ne nii jamono bii ma toll nii nii nii nii gagné na marché te bi ma ko koy jox boobu mënta am lu mu paase këram ñëw sama kër cangat lii laa laa taxaw ak moom mu jël ko rek téye ko seere ko ma di ko ma ne ko dee ci dox rek da ciy dox ba mu yàgg portam yi tëj woon yëpp di ubbeeku te boobu mi ngi xëccoo ay marché yoo xam ne nii xalaatutu sax ne lii dina ci basa jot tey jot na ay marché jox naa ko koo xam ne nii ñi ko yoreloon ay bor ñoo ko woo di ko wër pour fay ko bor waaw ah, moo tax ubbiku dafa am ubbiku goo xam ne bés bu xasee ne ci yow li ma la wax léegi boo dee tëdd dina la sax da ngay am xaalis hmm? benn milliardaire bu xam date bi mu war a am xaalis amul da ngay tëdd nelaw rek xëy suba di gis ay porte ay buntu di ubbiku nga xam ne suba maanaam lii dana am ginnaaw suba lii ba ba ngay egg fi nga am fi nga bëgg hmm. loolu mooy ubbiku dëgg dëgg ubbiku te loolu sangu moo koy maye nangoo sangu waaye nag nangoo sangoo lu baax waaw ah, loolu dafa mat a xam ah, ñun nag lii ñuy joxe alquran la ju ànd ak tegtal yu wér ak xam-xam képp koo xam ne nii moo tax léegi bëggatuma sax di joxe mbind damay joxe saafara rek ndax ma li ma defaral sama bopp man ba wóolu ko ba defal la ci biteel ne la am loolu boo demee booy laal di gis ndax nit ñi man nga leen a jox sax lañ koy composé ci lañ koy yàq bu ko defee dañ naan li ma sangoo gisuma wala damay sangoo sonn waaw. d'accord waaw macha allah euh, macha allah Serigne Cheikh Fall Xataaba kaddu gi na solo bu baax a baax a baax mais xam naa rek Serigne Cheikh dafa mel ni fàtte nga kaaraange kaaraange bi. ci ubiku la nekkon waye jimmi karange ñun karange yi ñi liggey mi ngi joggi ci buur yi ndax imam yi pay da mel lañ ta buur yi bu ñëk fi yagul dara da nga daan gis buur bu tak galajam ba taxaw ñi koy door ay bali fital ba lim taxaw di tak ta mom deum du ko dal lolu karange koy waral léegi nak boolem xeeti kaaraange yi suñ borom dimbali nañ ci ba denc nañ ci yor nañ ci loo xam ne amul kenn koo xam ne danañ jëflante ak yow ngay tiitati ci àddina ci dara ci def wala wax ndax kaaraange dëgg nag du yam ci kaar la ci ay def-def dalay aar ba aar la ci ay wax wax ju ñaaw sax bu ko nit jëmalee ci yow am jafe-jafe ba xam ne sa yaa sa jëmm ko waral loolu mooy dëgg dëgg gàllaaj dégg nga bu ko defee wàllu kaaraange ak ubbiku ñaar yi dafa doon loo xam ne dama naan la mën naa ne dama cee toog daal. jamono bi ñu tollu ni nit duma xam mukk di am jafé jafé karangé wala mu am jafé jafe ubbiku hmm. wa te deug deug karangé hmm. ba ci tul karangé ba ci sa walu yaram yor nañ ci tul yu ñu liggéey yo xamni ni manam fetal du la dugg hmm. paaka du la dugg lañ set sax du la dag wa te jamono bi nak loolu lu mat am la ndax jamono bi ñu jëm rew mi dafa tang te yu bari lay am yu bari yu xew motax nit ku ci nekk war nga jogguti karangé ngir sa jëm tul yi ñi jaay yi defar diko liggéey diko joxé ni gaa yi war nañ ko wut am ko takk ko ndax xeer paaka dara du man a dagg sa yaram dara du toj sa yaram. Hmm. waaw bis boo ko xasee am jeex na. Hmm. te méttiwut képp koo xam ne woo nga ñu danañ lekku ko li nga am ko. Hmm. fa saasa insha allahu. paaka moom man ngay jaar ci seen biir nii. jaas yi man ngay jaar ci biiram. lañ set dara luy dagg nit lu yàqu yaram noppi nga ci mucc nga ci. incha allah. Euh, macha allah Serigne Cheikh Fall xataaba euh, kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax képp koo xamante ne bëgg nga am kaaraange kaaraange bu doy waar bi nga xamante ne Serigne ak Fall xataaba euh, tudd na ko boo war a si numéro di affiché suuf baaru écran incha allah di nga ko jot te say aajo dina fajoo ñu jël suñu beneen question ek muy wàllum nopp Serigne Cheikh li may dégg nopp bëri na est-ce que nopp lu wér la sax. waaw nopp ak a waaye ak jafe dama laa wax ne doomu aadama du xar mu nuy jël rek takk bu mu yow yóbbu koo gis ku ne am na lu ko yàlla booleel muy ay muy ay rawxaaniya ñi di ko sàmm di ko aar léegi nag jëmmi noob dafa egg ci jamono bi foo xam ne bari na ñu koy tuddoo wala ñu koy wax waaye def ci résultat moom yombul waaw résultat bu leer moom boo ko bëggee dangay ngay ñëw ma tegal la vocal yi ci téléphone bi voilà def résultat ci noob jamono bii ñu toll nii gisuma ni ma koy defee ku ko ne defee moom. Hmm? mën naa ko waat wallaahi. képp koo xam ne nii juboon na ma ak yow ci kawi kàddu la ngay mujjante ak man mooy jàpp sa nawle wala sa morom andil ma ne ma kii daa bëgg noonu. te loolu tawféex la. waaye nag niñ koy liggéeyee yàlla mooñ ci jox xam-xam boo xam ne nii ak secret boo xam ne. yombut doomu aadama ñi man ko koo def mukk mu rëcc. boole ñaari nit moo ñu gën a yomb jamono bi moo xam muy góor na nga bëgg góor wala nga bëgg jigéen ku mu mën a doon dana la topp ni xaj yi toppi borom loo koo wax mu def ko. damay noob nit mu bëgg nit ki mu bëgg ba ragal ko. koo xam ne sa jabar dem na ci egg ci mënatu la maanaam ñemeetu la sax day yor doomam nga ne tëll ci kër gi mu teg doom ji. ngir tiit loolu. noob gu wér moo koy def gu ànd ak xiir ay yëf la nag yoo xam dafa metti liggéey bu metti la waaye ñoo ngi sant yàlla ndax mboolem ñin koy séqal barakallahu ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax te ñi ngi ciy gis résultat waaw kay kon nopp moom wax dëgg yàlla amatuñ ci lu ñuy prouvé wala lu ñuy wax li ñuy def daal mooy képp kuñ ko seqal insha allah da nga sant danañ sant. macha allah euh, Cheikh Fall Xataaba kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax ñu ñëw nag ci daj dëpp gi suñ Cheikh Fall Xataaba nag képp koo xam nag xam ni dina yëngu si wàllum faj te nag mën naa ne faj na doomu aadama ñu bëri ñi nga xamante ne amoon nañ ay tolof tolof. c'est ay néew kàttan estomac ñi nga xam dañoo am problème euh, ak ñi nga xam dañoo asma mën naa ne faj na si mbooloo bu taqu sëñ si xam naa dañuy commencé affaire wàllum faiblesse sexuelle ngóor a néew kàttan sëñ bi ku mu dal naka nga koy saafarawe. ngóor ak kàttan ni ma la ko yàgg waxe dama ne la nit duma xam mukk ci àddina di am jafe-jafe wala boog jëflante ceeg man di am jafe-jafe ndax li waral mooy man dama ne la yuruma garab goo xam ni day faj sa sa sa aajo garab guy faj sa jàngoro laa yor waaw guy faj tawat. yow mi nga xam ne xam nga néew kàttan ak tële ak yoom dañoo nuru te bokkul yoom dañ koy judduwaale kenn mënu koo faj waaye yow mi manoon ba mu yàgg la nga man mënatoo ko wala na nga daan def defatoo ko wala nam daan mel melatu ko kooku laa soxla. kooku saa boo ñëwee ci man ba ma jox la sama garab nga jël ko mm. insha allahu da nga taxawaat sant yàlla ndax da eggaat fa nga la la la jafe woon nga tëlee woon ko loolu la la fa la lay yóbbaat waaw kon wàllu garab yi ñu yor ñun di ko joxe nit ñi di ko jëfandikoo du garab yoo xam ne nii da lay da nga koy jël tay mel ne fas suba doo man dara garab gi baas bi mi ngi tudd maka jóge siin yeneen produit yi nga xam ne moom lañ ko booleel muy meññeef yi sax ci réew mi yépp lu ñuy lekk la. meññeef yi ñu ko booleel nga xam ne nii mooy moo moo ànd ak moom lañ liggéeyee garab ba mu yor doolee ji mu yor nga xam ne day faj nit di yokk man yu di génne ah, li nga xam ne mooy sàkkara su dellu di yokk kàttan ak puissance nga xam ne naturel la luy rees la loo xam ne tey jii bu ñu la ko joxoon mën nga ko lekk am na ci yoo xam bi seen nga romb ko ci mbedd mi doo ci am soxla waaye suñ borom dimbali nañ ci bañ am ci xam-xam bu toll ni di ko liggéey di ko defee nii ñu koy defee képp ku ko jël ci kàttanu yàlla tàggoog néew kàttan hmm? incha allah loolu moom àdduna si yëpp wax naa leen ko fu ne ñi ci yàlla dimbali nag ñi xam ko wala ñi échec ko moom ñi ngi ñi ngi apprécier xam nañ bu baax ne feñ nekkoon fi mu ne passé nañ ko ñi ngi doxal bu baax te tubaarkaal. waaw kay jërëjëf. macha euh, allah Serigne Cheikh Fall xataaba euh, kàddu gam na solo bu baax a baax a baax jolle nag mën naa ne si li nga xamante ne tamit sonal na senegal yëpp muy wàllum hémorroïde ak ndoxam siti mu mel ne nag ñaari feebar yooyu dañoo xaw a niroo. ñaari feebar yooyu dañoo bokk nuróo mboolem hémorroïde yépp bi génn ak bi ci bi bi ci biiree am ci deret lay dox bañ na ko ba bu eggee fa mu war a egg dëgg sax day sañee di génne deret sa deret di génn loolu nag garab gi koy faj mi ngi fi te genn garab la fi mu ne garab gi may faje ndoxum siti ci lay faj hémorroïde benn garab la ndax ñoom ñaar ñoo bokk ñoo ànd. raxas sa deret te noonu muy faje hémorroïde bi sax ak ak ak ak ak ak euh, ndoxum siti bi. noonu lay dollee kàttan ci wàllu say garab gi waaw garab gi da lay faj ba noppi da fajalaale yeneen garab yeneen tawat yoo xam ne nii bokkul sax ak yi taxoon yow nga di ko jël moo tax ñi koy jël ñépp gis nañ ci seen bopp teint bu rafet ak leer lay njëkk a def ci yow. dana def ci yow tamit maanaam lekk ba suur dana def ci yow nelaw yu baax boo ko tàmbalee jël maanaam garab ndoxum siti la goo xam ne nii lim gën a bañ nag mooy ki nga xam ne ndoxum siti dafa tàmbale woon a ci la yaramam wala muy dammi weyam wala muy xonqi bëtam di ko xasan xeet yooyu da ko da koy da koy éliminer fasaasa boo ko tàmbalee jël rek moom day daal di tàggoog yow yooyu yëpp da nga daal di gis yaram wuy wow ak loxo yu dëgër di wow ak yëpp di xub da koy dindi noonu lay dindee hémorroïde bi noonu la koy faje bu dee bi ci biir wala bi ci bitti bu mu ci a doon da koy dindi ba mu set waaw da koy raxas ba mu set waaw bu ko defee wàllu hémorroïde daal ak ndoxam siti noonu foofu lañ ci yam macha allah Serigne Cheikh Fall xataaba kàddu gi na solo bu baax a baax a langsung ñu jàll nag suñu ñaari beneen question mën asma mën asma sa bopp nga njëkk a niti. balaa ngaa faj nit yi sëñ bi lan secret bi nga nga war yor si walum asma. waaw asma xam nga asma di mbir moo xam ne nii moom dama ciy sawar wax mooy man kuma xam ci àddina xamoon nga ma asma xam li ma ci asma. ñi ma daan àndal ñaare yàlla dogal na am na ñoo xam ne daana asma daana ma daane sax bañ yërëm ma jàpp ne damay faatu ndax bu ñu ma ni ma daan diggee crise bu metti bi ma daan egg waaye li waral ma am ma xam garab gi mooy nit tawat bala moo nga ko xam dëgg-dëgg daf lay daal ndax man jàppoon naa ne tawat yi àddina bi yépp asma ci gën a metti ngir li ma ci daj boo ma gisoon boobu damaa jeex takk tuuti ngir asma yàlla yi def ma di topp di ko topp di ko wët di ko wër mboolem lu ñu ma baax na nag def naa ko man asma luñ ma massa wax ne ma da koy faj rek def naa ko waaw mais xam naa ci yi nga xam ne nii dafay calmer xam naa ci yi nga xam ne da koy faj moom ci laa dem nag ba xam garab yoo xam ne nii da koy faj facilement ba mu tàggoog sa jëmm. Hmm? waaw ndax dafa bari ñoo xam dañ la asma du wér asma du wér waxeen la du wér mooy loo xam ne nii daf laa waroon a rey. Hmm. yàlla dogal deewoo ci ndax lu lay tee lu ne rek rey la naroon a def te asma da ngay am ale doo am retour wala nga am retour doo am ale di fat kon dee ray la la naroon a def bu yàlla dogalee nag nga nga nga nga wér ca dañ naan la dañ naan ku kum dal da gudd fan loolu mooy gudd fan loolu waroon a rey bu la rëyut kay gudd nga fan léegi ñu naan la asma kum dal da gudd fan waaye bis bu set ñu gis ñu kum rey kon bu kenn wax ne kum dal da gudd fan. waaye jimmi waxinu wolof dafa am ak itam ci dalal xelu nit wolof dafa bari aada yoo xam ne nii dañ ci dalal nit maanaam tey nga tawat ñu woyofalal la tawat ji asma mag ñi xam gu mu xam metti gu metti moo taxoon ñi la daan wax loolu ne comme daal day gudd fan. waaye tawat ju ko gën metti amul waaye asma dafa am ñaari asma bu bañat ndax am na koo xam ne asmaam sedd lay bañ. waaw am koo xam ne asmaam xiin lay bañ. am koo xam ne asmaam activité lay bañ yëngatu. léegi nag man bi ma yoroon lépp la boole woon man sama asma sedd da ko daan sonal xiin da ko daan sonal activité da ko daan sonal. ba ci boobu masaana lekk lu am diw sax mu yëg lu guddi su ma lekkee lu am diw rek mu yëgal ko kon <clears throat> lu ma wax ci asma lu ma xam la maanaam dama koy faj ba mu wér facilement képp ku mu dal samay garab boo ko jëlee da ngay wér ba asma dootu la te xam naa yoo xam ni sax waxuma la mu faj la waaye ma jox la garab waaye bu ma la ko waxee rek boo demee saxal ko tàggoog asma loolu nag tawfiix la joo xam ne yàlla ma ko ci defal ngir coono bi ma ci daj ak li ma ci daj. Euh, macha allah Serigne Cheikh Fall xataaba kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax xam naa ne képp koo xamante ne euh, feebar yi ma lim am nga ko rek incha allah boo ñëwee si fii si kër sëñ Cheikh Fall xataaba incha allah sa aajo dina faju ñu jàll nag suñu beneen question muy wàllum estomac sëñ bi sëñ bi estomac sonal na ñu bëri ñu kat ñi ñi mu dal moo bëri si réew mi jamono ji. estomac dafa sonal nit ñi <laughs> waaye yàlla suñu borom tawat bi mu wàccee ci àddina wàccee na garabam estomac damay wax toujours ne leen jooni jooni laa koy faj waaw saa boo xamee ni nii ñëw nga jël garab gi ci nga koy noppee yëg te garab gi ñeenti yoon nga koy naan waaye ci naan bu njëkk bi ci ngay tàggoog estomac bi bis bu njëkk bi nga njëkk def rek kaasu meew def ci garab gi yëngal ko naan bu fekkoon mu sonal la ba ngay bëgg a jàpp da ngay faatu fa saasa lay dañ te booba it nga koy noppee yëg ñeenti naan kese ñeenti naan kaasu meew ngay defar rek suukar defar ba mu baax jël garab gi yëngal naan. waaw loolu nag te tawféex la daal ci itam suñ borom li ma la ko waxee léegi képp kum teg tawat indil na la la koy faj ca wet ga moo xam nga xam ko wala xamoo ko wala nga daje ku ko man wala ko ko mënul waaye ñun mboolem garab goo xam ne nii ñu ngi koy wax fii wala ñu koy tudd lu ñu saytu la ba xam ko man ko di ci def résultat di ko jox nit ñi ñu ciy gis résultat ci bépp garab bu ma la tuddal man sama garab voilà. macha allah euh, macha allah Serigne Cheikh Fall kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax comme li nga koy waxee rek lu duuf si nag bi xajul si cin bi dañuy jàll suñu question actualité rek war na def ay révélation yu doy waar si procès bii ñu jëm le 23 mai diggante Adji Sarr ak Sonko sëñ bi lan nga ñu wax si procès boobu noonu. waaw kay procès Adji Sarr ak Sonko moom Sénégal yi bu ñu amoon jëm dañ ko ciy génn te bàyyi ko. dem bàyyi ko ku ne seeti loo def Adji Sarr dem ca la mu nekkoon ñu bàyyi Seydina Ousmane mu dox itteem ndax daal yab yàlla weesuwut projet bi yab sénégalais yi weesuwut projet bi yab doomu aadama yi ak ñàkk lii a teg fenn jàppe leen ay picc ki xar moo tax ñu topp projet bi ba nëgë ni ndax jëmmi aji saar rek ci gàttal jëmmi aji saar mi ñi mi ne moom lañuy ñuy eh, sàmm ak xam ak yelleefam moom jërul 14 moor moom benn bakkanu aji saar jërul 14 moor ak xam ak yelleefam it jërul benn moor waxuma la ak te mbir mi mën nay egg ba trente walla cent suñ ko bawut ndax gis nga Ousmane Sonko boo ko bëggee faagaagal doo ko faagaagalee nii ñoom ñii nga xam ne seen itte dafa nekk ci yàq mbiram dañoo waroon dem laaj yi kan muy Ousmane Sonko ak fu ko war a jaar gis nga tëj ko ci kaso bi sax téewut li war a doon mu doon ko téewut li mu war a def ci réew yi mii mu def ko waaw loolu ma ñoom ñi koy def nañ ki dalal seen xel wala ñu xam ne duñ yàlla duñ suñ borom te yàlla moo sàkk jaam melal ko nu ko neex jël Ousmane Sonko def ko nii mu ko def ñi koy fakkastale nu ne di ko defee di ko def lu ne suñ borom saa bu ñu xëyee mu mën leen si bopp ñu dëgër bopp ñàkk jom toppaat léegi nag li leer mooy nañ continuer rek bis ba leen di yàlla gën a nattoo muy seenum bis di seenu penc bis boobu duñ ko bokk kenn mooy bis suñ koy jàppee ba yóbbu ko ci kaso boobu bis boobu lañ jut bokk kenn te nañ ko waaj bu baax nañ ko xaar. te du tee moom li mu war a doon suñu borom fas yéene mu doon ko ba ba ñuy faatu moom dana ko doon incha allah waaw li ñuy ragal ci moom itam saa bu ñu xëyee di ko ragal dana dal ci seen kaw incha allah waaw Ousmane ko nitu yàlla la nañu ko moytu ku jara fonk la Sénégal nañu génn te xamaat seen bopp xam ki ñu am ak li ñu am waaw nañ ko fonk nañ ko fonk du ko dañ di wax nitu yàlla la nitu yàlla du nitu ordinaire nitu caaxaan. nit ku sell la nit ku baax la ku ragal yàlla la ku am cirub yàlla la nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah